danaa tere lamb amoo ñaan waajur man a loolu barki leeru alxuraan yaa na ma tapet ma kon am na looy xalaat si suba ba léegi yaa ngi tapet tapet tapet tapet am tapet nga yow lu ma sëkk ak tapet walaay lu wow laa lay boo ñëwee ma duma la daan la billaahi nga xam ne duma la duma yi métti doog la say loxo dafa gàtt mënoo maa duma ba mbër da teg bi tegal bi boo bëgg ma tegal la yow man boo teg ma boo teg ma jël ko boo bëgg kii du ko song daan ko lu ma sama carrière làmb yàlla bu ma ko am man est-ce que du booy barke Serigne Fallou Mbacké yaa ngi may ruube eh, eh, eh, booy moom la du taxaw ma def ni amul quoi. yow man a rek nga yaru yow yaa war a yaru